asalaamaaleykum mbokk internet Baol TV pël bu rafet mu ngi leen di nuy di leen ziar maa ngi toog ak champion bi muy Pape Ndoye vainqueur Abou Ndiassé di ko féliciter di encourager ki nga xamante ne mooy Abou Ndiassé di leen wax ne que làmb noonu la ku bëriwul doo daanu ku bëri mooy daanu Pape Ndoye ndaanaan la champion la Abou Ndiassé la champion la démérité wul bëri na ba daanu Pape Ndoye bëri na ba daanu lépp Sénégal la génnul Sénégal mbër maa ngi leen nuy di la ziar wax félicitation merci onze billahi mina seytaan rajim ñu ngi sant yàlla bu baax moom mi ñu may ndam li ñu ngi koy sant bu baax di sant suñu dëkkandoo yi waa naa waa ñaari tali gaa yëpp génn jàpp ci combat bi waaw ku xool stade bi tey xam ne tey ñëpp gunge nañ Pape Ndoye ñëpp génn nañ jàppale ma waaw kon dañ ci dañ leen ciy remercier di encourager sama adversaire di ko wax ni champion la te bi mu sumee ko àdduna yëpp xam nañ liggéey na waaw liggéey na xëy na yàlla moo ko xañ jox ma ma ciy sant yàlla rek waaw Pape ñu gis euh, durant combat bi bi wàccaay bi nanguwoo wax lan la woon lii nga doon xaar. waaw lii laa doon xaar quoi ndax waxoon naa ko ko neewoon naa ko man moom du ma daw giita nga sax sama benn moroomu góor waaw daw ma loolu parce que sëñ Touba. te moo woon wax jotul boobu wax jotul woon te ñu ngi woon si entrainement yi xam nga te am na lu ñu war a indi ah ñu ñëw nit ñi dar ñu ko ñooñu instant boobu wax jotul. waaw loolu dina doxal làmb PAM loolu. non. signé contrat jàmm ba pare ne man man xam ku ma xam-xam ni man moom. du ma du ma du ma du ma yàq benn benn bés. waaw du ma yàq signature du ma yàq dara jour boobu noonu promoteur bi après tasante nañ 2STV yi. moon ko sama bët ni mu tolloon ci boobu si box bi mu comprendre xam ne. ah sama bët bi waaw dafa neewi woon ba mënuma sax gis. waaw ah. da ngaa dem Thiès. non boobu damaa tukki waale woon billaay laajal ñi woon na yàlla. waaw man moom duma duma yàq ay ay ay kii moom wax dëgg yàlla. dañoo foogoon ci li nga jóge woon moo taxoon nga dëxëñu ne pat toog si sa ruq. non man moom ci li ma jóge woon jóge naa ci fàtte ko man depuis. depuis jamono jooju ba tey sama sama tracé rek laa topp entraîné ànd ak samay mbokk ànd ak samay doom nday bool li ma neex li ma naqari yëpp di muñ di liggéey ndax jullit laa damay julli damay woor. waaw loolu sant yàlla. ñambaas yàqul jën. yàqul sër waaw waaye tamit Pape Ndoye bu nekk dara jotu ko wér nekk nii rek lay demee. maanaam bi nga jógee ci Jackson boobu wéeroo woon. ah mais boobu loolu loolu loolu loolu loolu. ñëpp xam nañ ni mu demee ñëpp. gis nañ ni wéeru ma woon damaa dëgër bopp rek. bul dem lii affaire mbër la gis nañ ni mu demee waaw ni mu ah dañuy sant yàlla rek. Ah, boobu waaw boobu damaa tawatoon mais instant bi sant. force waaw waaw mais instant bi sant yàlla. Pape Ndoye ban moo fa amoon sa diggante foofu amul erreur dafa war a daan rek daan na. waaw dafa war a daan daan na mais xëy na man ba may ñëw boobu man mooy loolu mais dafa waroon daan rek daan. poids bi waaw sama poids la kay man waaw. bi la moo tax nga wàññi poids bi lan. waaw ah, parce que dama am ñu nekk sama ginnaaw rek ma leen di déglu waaw. ma jaral leen lu nekk ñu may defal lu nekk buñ ma nee defal li yokkal ma yokk buñ ma nee wàññil ma wàññi waaw sama ndam mooy seen ndam sama defet seen defet la kon ñooñu awma lu may xëccoog ñoom. léegi euh, signature bi PAM doo euh, ñëwul Abou Ndiassé moo yoroon communication bi tey la mu waxoon daa mel ni moom loolu la def làmb ji yow daanu nga ci am da ngay ñëw jébbal tey ngeen bëre ngeen ambiance daa mel ni ambiance bi tey fee la ñibbi jàmm gën tey ambiance bi mais bëre bi. ñibbi si asek na non Abou Ndiaye sa stade bi yóbbaluñ dara man neewoon naa ko doo ma yóbbul dara ci stade neex na de waaw garaawul man damaa faas faas bu dëgër xam nga denc li may denc pour ci biir géew gi man ñëw ma foofu indi cosaan waaw man ma ñëw indi cosaan pan tamit sama sama sama sama écrit xëppoo soow waaw xëppoo soow def yëfu lebu waaw zarane def li may def ñibbi waaw man nekkuma fa di ay ay ay yii waaw di mbiijam booro non dangaa toj njàkk njàkk la ànd njàkk <laughs> man yooyu yëpp xaw lan la ma damay jékki rek ñu jox ma ne ma defar rek ma def man aw ma dara lu may uti uti wu ma dara barke. Diop journaliste la reporter la wala moom sottikat yàllaaj la. damay toog Lac Rose ak Gris damay toog rek ñu ñëw ni ma defal lii ma def bàyyil ma bàyyi kii sama fils la. Ah. waaw ñëw ci combat bi lan nga bëri ci biir combat bi sa diggante ak Abou bi arbitre waaw Abou Ndiassé respecté naa ko respecté naa ko parce que bi mu sumee koo moom wax dëgg yàlla ku yor ay bët di xoole di nga xam ne liggéey na di nga xam ne tamit ñëw combat bi respecté woon na ko waaye tamit man mënu ma ko gën a respecté. yow lan nga bëri ak moom bi arbitre wàccee bi arbitre wàccee loxoom man waxoon naa ko signature bi 2 waxoon naa ko 2S ma ne ko man moom damay ñëw sa kaw bu fekkee da ngay ñëw tamit dañuy daje rek man ak yow te loolu may wax du ma si jóg kon sama morom bu góor bu taxaw sama kanam man jàpp naa ne damaa war a dem. loolu laa jàng loolu laa xam kay loolu laay def du ma ci dellu ginnaaw waxoon naa ko da ñëw ñu daje rek wala ma ñëw. lépp lu mu laaj rek kay moom boo paree moom léegi boo nga xam ne di ko fa fekk. waaw ñaari tali biscuiterie. Fass naa bii ma dëkk. yëmbal yëmbal waa Café ga gaa yëpp ñëw Darma. jàmm gën si ànd ak man dooleel ma. tey ku xool bés bi xam ne tey ñëpp dañ maa dooleel. parce que Seexul Xadim ba moom fi mu dëkk sax am na ñu ko faral. léegi yow lay wax sa adversaire ginnaaw bi làmb ji jeexee. sama adversaire champion la. Abou Ndiass. waaw lii bu mu ko def dara wóor na alxuraan liggéey na yàlla moo ko xañ rek yàlla moo ànd ak yow. moo man yàlla moo ànd man dama koy wax rek. bu noppali ko mu nekkaat si ay entraînement mën na am nekk si làmb parce que koo xool xam ne jekk na te mbër la fu mu ko duñ laaj ca anam mbër mi kon loolu sant yàlla la Pape Ndoye daan mbër loolu du ñàkk jom loolu du ñàkk jom de. mais loos bi loos bi. ah. loos bi. loos bi loolu. yow Abou sax waxoon naa ko bilaay waxoon naa ko nee naa ko man daw ma loolu te balaa moo xam ne daw ma loolu am na ñu des. mais tey da ngaa liggéey yëkkati Abou Ndiès ba ci kaw. am na ñu des ñu war a jëmbataat ñan la. mama Lamine waaw ñan la mama Lamine. mama Lamine. mama Lamine eh, bànn géew la de. ku ngeen si mat ku ngeen si nee na mayatul benn boy sens. nee na mayatul benn boy sens ku ngeen si loolu la wax. ñun booy ñoo koy ñoo koy neexal. waaw comme ni ko Lac Rose indee parce que ñun dañu am ñu nekk suñu ginnaaw ñoo xamante ne nii duñu ragal de. waaw sama maire bi toog xayta mii xayta sekk mii. maire xayta waaw. day xëccoo ñaari télé. ah waaw. ak suñu maman yi toog tan nday ba. te ñoom ñëpp. léegi ñan nga war a bëreel ñan lay sa léegi bu fekkee ñemee wax say adversaire ñoom nañ wax. ñun ñemee naa wax sama adversaire. ñan la. ku li fay de mën naa ñëw. waaw. Eh, Coen si mën naa ñëw. ak kan. Feugeuleu moom sax su neexee mën nañu ñëw. bàyyi sa mbalaay gi nag Feugeuleu ma ci Amérique. ñooñu mën nañoo ñëw. ñooñu yow daal waa Lamsaar nga delluwaat say bët. waa Lamsaar dama dama war a. saxaat Lamsaar la ne. Feugeuleu Lamsaar la fa la ne léegi yow ñooñu rek nga ciblé fu mu toll nii. ñëw bi kay jóge jëlaguma ko foofu noonu. Ah. siège bi boo war na yàlla si pare pour ñoom ñëpp. dañu am lu nekk soo ko xool naa ni booy dañ koo ku ci daan <laughs> wax naa la ñu may dem pare man. Ah. man wax naa la ñu ma wax. yow ñi nga wax. pare wax naa li ma la wax nee naa la Quench bu ñëwee ñu bëre. Quench bu ñëwee ñu bëre. ñu ñëwee ñu bëre. waaw parce que dafa am ñu nekk suñu ginnaaw dañu jàppale. ak Serigne Touba Mbacke. Malick Meng dafa jàpp ci combat bi bu baax Xayta Seck mi toog dafa jàpp ci combat bi bu baax a baax maître Ba l'avocat de la jeunesse dafa jàpp ci combat bi. xam nga làmb làmb waaw rek. parce que su fekkoon nii rek la dina metti trop suñu maman Ndeye Saly sama yaay ak sama papa la Rose Gris 2 Birahim Diop Omar Diop Laaji Thion Seydou Kourouma Bob Marley. mais Pape sooy suñuy tëj nga continué si Bob Marley la nga yem ci Bob Marley la nga yem léegi euh, lu ma jaaxal gars nañ sa xeex dafa xaw a des ndax ni ngay dóoree da ngay mel ni kuy ngàdd yow. Hmm. mais maa ngi ciy di am li ma bëgg rek. <laughs> Ah. mais ngàdd yooyu wóorul. waaw mais maa koy def di am li ma bëgg. mais ngàdd yooyu wóorul Pape. Ah, man de pour de. moom kay na ma. dégg nga benn ngàdd sax dinaa la ngàdd. mais ngàdd yooyu encadré yow dafa doy waar. baax nii. ah mais loolu tamit loolu foofu ñu wax si. ah ku ku béy ku béy la jël ngàdd daal bu laal avance bi ay benn ngàdd bu rëy ngay def ñaari ngàdd bu rëy xam nga ba pare enseigné ko nag. parce que ñun moom xam dugal pied pied droit. waaw xam nga boo ko defee da ngay tëj bëri. non ñun ñun ñun ay bërekat lañ. bu ñëw ñu jàppante rek di ngeen a jàngal bëre. ndax bu ñëw tamit wóolu ci xeex. di nga xamante ni ñun. fii nga koy fekk daal. mënuñoo juddoo Grand Dakar yoroo Grand Dakar màggi Grand Dakar ñëw aseg naa ànd ak waa aseg naa. NGB. ba pare bëgg a nekk ragal loolu mënul nekk. nee nañ de aseg naa ragal du fi dëkk moom. bu hmm, man su ma ragal tamit tekki sama ngemb rek bàyyi billaay. maa ngi lay jaajëfal di la kontaane di la waxaat félicitations encore une man tamit maa ngi lay remercier di ziar nag ñu ngi jàpp Malick centre commercial. Pape Mama Fall Guédiawaye kooku moom xam ngeen ko yéen sax da ngeen koy remercier. Mm. ñu ngi koy sant ñan ñoo koy remercier. ñun koy sant bu baax combat bi na ci suñu maman ah. la grosse de nelawuñu ci combat bi. bu ay la. Birahim Diop xayta Seck moom li ma may ci combat moom. xayta moom lim la may bëri na yaa ngi koy tudd rek. Mbacke non daf maa maye maye may ba su ma ko a tase mm. Grand Dakar yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm adduna yëpp. di gërëm ñi ma topp sama ginnaaw tey yëpp di nga ma estat gis naa taxawaay bi waaw di sant sama maman yi nga xamante ne dañoo bàyyi seen kër bërki bërki dem ba tey ñëw fii fanaan bàyyi seen njaboot togg togg yàq yàq yi maa leen di sant bu baax ñun ñëpp bàyyiwuma kenn waaw Pa Sarr ñoom ñëpp a ngi leen di remercier daal lamb dafa metti wóor ma yàlla bu fekkoon man ak man kese la loolu yëpp mënu ma ko mais ñëpp ñoo bàyyi seen ay activité yëpp ñoo ma jàppale ma jàppal ma jàppale waaw jàppal ma jàppale neexoon ñu bañ a jàpp solo ba am ñu wax mbër day soxor mbër day soxor mbër day soxor mbër day soxor man maa la wax mbër day soxor damay damay damay xeex damay bëre da ngay def lépp waaw damay def lépp ndax sëñ Touba la am waxul dëgg rek. samay morom ñooñu am na ñoo xam nañ ñëw baax nañ ñëw. mais lim nga ñuy ñëw nee nga si. Ah? moom sama tool moom day neex torop. mais Coen si ne du may ti booy yi sens. nañ daa sonn loolu yëpp xeetu tapet la rek. tapet Coen si moom ku ko xam-xam ne du baax. boo xam-xam ne du tardé nag ah. ah. la moo tax doo dem a bawol bawol nga nga nga ciblé waa Lamsar rek. parce que waa Lamsar dama leen bëgg a jàngal bëri dama bëgg ñoom di si jàng bëri. ok ndax ku ci ku ma ci am dinaa la duma dinaa la jàpp dinaa la bëri loolu. waa Lamsar. waa Lamsar yéen a déglu <laughs> kon tey da nga waroon naan kafe de. man du ma naan kafe. man du ma naan kafe de. ñun daal ñu nii naan suñu kafe di sant yàlla nag di sant yàlla bu baax moom la ñu may ndam li. waaw merci ah ñu ngi yàlla bu baax a baax a baax. di jaajëfal ñëpp di jaajëfal ñëpp daal. Maodo. Gris 2 ak Lac Rose ne la wuñu. kenn du ñoom. kenn ñoom barke Serigne Saliou Mbacke général bu Fass. ñu nga ko Serigne Ndiaye 2. Baara Ndiaye. Dijé Dijé. Sibel combat bi ñëpp a si jàpp suñu papa suñu kati kati bàyyiwul benn yoon ci combat bi def na si lépp. macha allah jéggi siraat lakk waalo. tous lakk waalo. jéggi siraat la xoolal duma ko ko nëbbu moom. ma ne ko jéggi siraat kay lii. jërëjëf lii boo yaa may lii. man man man man jërë ngeen jëf. di leen jaajëfal di leen kontaanee. ñu ngi lay jaajëfal yow Pall. Pall léegi ko félicité di encouragé waat ki nga xamante ne mooy Abou Diassé di ko wax ne que déglu nga teewul. laaw bi eh, tus nag. lii ka am taboo maanaam. lii nga sama mag ju baax ji. Anta Ba. Baraq Maana Ba. ñoom Xadi Lo ñoom Boy Ndiaye bébé Assu. góor gi sama rakk Tàn Mari Mbay. Tàn Nday ba moom. mention spéciale. jaa ngeen jëf. encouragé ki nga xamante ne